na moom nee na moom sëñ Cheikh Ndigal xejul ci lëndëm nee na moom ci dëgg rek ci la mën a dem nee na fula fayda jaamu yàlla liggéeyal sëriñ bi nee na jàpp ca sama njàmbur nee na xulo a xuloo bañ a tooñ te ku ma tooñ ma baal la asalaamualeykum wa rahmatulah.